ne nangu nga ko wuyu ci suñu invitation bile. maa ngi lay remercier euh, Fatou Baba fal donc ci invitation bi. Euh, di la gërëm di la sant di euh, remercier ak di nuyoo ñëpp ñi nga xamante ni ñooy auditeur euh, réew mi FM voilà donc di leen jaajëfal ci invitation bi. tàmbali boobu rek ci kuréel bi nga bokk ñu gën ko xam ci LISTAB xeexam yëpp bokk ci lépp lu jëm ci wàllum xeex lii di cigarette ak li ci dérivé yi nga xamante ne moom moo ci mën a tuppee mais laata rek ñëw ci seen organisation bii di. LISTAB bëggoon xam euh, kañ ngeen ko taxawal. waaw LISTAB ñu ko taxawal euh, en juillet 2011 donc muy kuréel goo xamante ni dafa regroupé euh, kuréel yu bari mooy ay association ak ONG donc bañ ko taxawalee nag objectif yi moo nekkoon vraiment ñu boole suñu doole. donc mën a ja jàkkaarloog euh, ñi nga xamante ni ñooy euh, defar cigarette euh, mais aussi mën a dimbali ñi nga xamante ni ñoom ñooy population bi à travers état pour ñu mën a am li nga xam ne mooy loi donc loolu moo ko taxoon a jëkk fexe également ba njaayum cigarette bi ñu mën ko organiser mais aussi fexe ba xale yi tox mën a wàññeeku bu baax a baax ci réew mi. Euh, ñu bëggoon euh, xam rek euh, kuréel ñuy wax certainement am na vision vision ci lan la ci anam bu yaatu. waaw vision LISCAP moom comme niñ ko xamee mooy ñu fexe ba vraiment cigarette même bu fi jegewul tamit mu mën fi wàññeeku bu baax a baax. Mm-hmm. voilà ci biir vision boobu également euh, xam nañu cigarette jafe-jafe yi mu dafa bari mooy li nga xamante ni mooy ay feebar ak yu demee noonu euh, feebar yooyu tamit ci biir vision bi ñu fexe ba feebar yooyu mu mën a wàññeeku bu baax a baax a baax mm-hmm. donc ba lépp li nga xamante ni nguur mu ngi ko doon def donc pour jël en charge les malades liés au donc loolu tamit mën a wàññeeku parce que koppar boobu également am na feneen fu mu xàcc. Mhm. Euh, bu ñu sénégalaise euh, contre le tabac yenn saa nga dégg société nationale ba xam rek euh, da ngeen basé à l'intérieur du pays wala seen plan d'action Dakar la yem. waaw pour le moment li ñu gën a concentré wu mooy Dakar euh, mais tey jii yàlla def na ni tey ligue bi yaatu na ba mu ngi fépp ci Sénégal. Mm-hmm. donc ñu ngi repré ñu ngi représenté wu au niveau donc de tout les Sénégal léegi région boo dem am na fa benn point focal boo xamante ni moom moo fa toogal ligue bi donc di fa wuyoo ligue bi donc lépp li ñuy def ñun euh, te mu war dem ci région yooyu également donc ci ñoom lañ koy jaarale. Mm-hmm. bu ko defee mu gën a mën a yombal euh, mu gën a yombal xeex bi mais bu njëkk moom Dakar lañ nekkoon Euh, yëf yi yaatu na ba vraiment fexe nañ ba former yeneen acteurs yoo xamante ni ñu ngi sur le terrain nekk également ci région yooyu noonu donc di jàppale ci xeex bi. justement euh, euh, seen formation boobu comment ça se passe parce que xam naa ne ay acteurs yu assurer relais wala intérim du pays apparemment du nekk lu lu lu yomb tey comment est se passe. waaw c'est vrai que du yomb parce que cigarette bon pour nga nekk ci spécialiste. si wala nga xam ci lu bari yombul dafa laaj vraiment euh, nga yàgg ci mm-hmm. am ci am ci expérience mais euh, heureusement voilà yàlla dafa def ni dañoo tombé ay acteurs yoo xamante ni ñoom dañoo nekkoon ay acteurs de développement xam nga boo nekkee déjà ci association di ci yëngu donc euh, day yomb pour ñun vraiment ñu mën la jox quelques outils formés la mm-hmm. après nga mën a dem maintenant li ci topp nag mooy formation bi du doy mm-hmm. formation bi du doy parce que au fur à mesure donc da ngay donc ñuy également di renforcer seen ay capacité voilà ñoom bon bañ leen sax yàggu trop mais au moins euh, ay séance de renforcement de capacité di partager ak ñoom également ci yu bari information yi nga xamante ni pour que ñu pour que ñu nekk au même niveau d'information que Dakar mm-hmm. pour que vraiment euh, li may laaj boo ko mënee laaj également ku nekk ci région Saint-Louis wala feneen mhm. mu mën la jox également tontu yu mel noonu donc on essaie vraiment de faire euh, en sorte que euh, même su fekkee am nañ euh, côté boo xamante ni ñoom foofu lañ gën a demee moom lañ gën a miin mais au moins dañ ciy yokk rek parce que wér-gu-yaram la wér-gu-yaram dafa yaatu ko mhm. voilà te méthode sensibilisation wala méthode plaidoyer en général benn la bon li ci changé du bari mais contenu bi moom mooy changé mhm. léegi nag ñun ni boobu la ñuy yem a defaraat pour fexe vraiment donc ku ci nekk euh, mën a def liggéey bi comme ni mu waree donc ak fépp foo mënti nekk ci Sénégal. justement seen domaine d'intervention ci lan lañ ko mën a xaaree. waaw suñu domaine d'intervention moom bëri na quoi euh, moom nañu wax ni plaidoyer dañ koy def mooy fexe ba vraiment euh, bu amul loi ñu fexe def ba mu am loi euh, bu amee également loi ñu fexe ba loi yi ñu appliquer ko bu ñu bëggee également yokku taxe ñu fexe également ba taxe yi yokku à travers vraiment ni ñuy ke ak ñi nga xamante ñoom ñooy décideurs yi mm-hmm. donc muy nguur gi lu ci ëpp ak également ak kilifa diine yi parce que ñoom également ci xeex bi lañ bokk te dañ si jàppale bu baax a baax euh, bi ci topp mooy formation mm-hmm. formation mooy euh, ñi nga xamante ni ñun nekk suñu biir dañ leen di former former également ay nouveaux acteurs parce que képp ku ñëw ne bon dafa bëgg a nekk membre également il faut ñu euh, former la nga mën a xam lan mooy taba lan mooy loi naka la ñuy defee sensibilisation lan la tabac di def ak yu demee noon ak également donc monitoring mm-hmm. donc suivi bi parce que tey jii dañoo am benn rôle boo xamante ni dafa am solo mooy dañuy jouer benn rôle de veille et d'alerte mooy di xool mm-hmm. xam nga bu ñu ne loi am na te appliqué wuñ ko bon <laughs> état munu ko wax ñun ñoo mun taxaw ne loi bi kat kenn appliqué wu ko parce que am nañ quand même cette euh, cette indépendance la mm-hmm. parce que en tant que société civile donc loolu noonu mooy tax vraiment Euh, ñuy wër di xool bon même su fekkee suñu rôle nekkul vraiment di appliquer la bi mais di xool est-ce que loi bi ñu ngi koy appliquer ak fu mu toll bi ci topp mooy euh, surveillance industrie tabac industrie tabac dafa nekk kuréel goo xamante ni bon dañu am doole nekk ay lobi di ji defar cigarette di ko jaay di lëkkaloog ak ay état ak gouvernement donc ñooñu euh, comme dañoo xaw a am ay euh, ay tactique ak yu demee noonu euh, di yor ay prox prox ndoll comme ni ñu koy waxee donc il faut que ñun ñu mën ko di ko détecter di ko surveiller di ko gis kan lañ jokkool kan lañ waxal lan lañu maye lan lañ def loolu il faut ñu koy dénoncer parce que ñoom lépp lu ñu def rek defuñu ko ndax dañoo baax lépp lu ko li ñu def rek c'est parce que dañu am ay intérêt yu ñuy sauvegarder donc intérêt yooyu noonu ñuy sauvegarder mooy waral ñuy mayee fii tabax fii defar fee ak yu demee noonu loolu nag il faut que ñu koy dénoncer bu ñu ko dénoncer nag euh, mën nañ ko wax population bi un mën nañ ko également def ci ay rapports yónnee ko état pour que ñu bàyyi ci xel parce que des fois gouvernants yi mën nañ ci bañ a bàyyi xel mm-hmm. mën nañ bañ a comprendre mën nañ gis rek li nga xamante moom moo teew tey tey tey mais duñu gis li am ëllëg donc tey xam naa bu ñu demee ba xuus si waxtaan bi di nga gis ni vraiment ay texte yu bloqué ay loi yu ñu retardé euh, loolu yëpp lu koy waral mooy voilà xaalis bi nga xamante ni yaa ngi ko doon jël bu njëkk parce que ñooñu tamit booy jël seen xaalis il faut nga leen di bàyyi xel bàyyi xel boobu nga leen di bàyyi xel mooy euh, waxuñu ni doo jël ay loi mais balaa ngaa jël loi dina yàgg. Mm. justement dañuy des ci li nga xamante ne moom moo bokk ci seen plaidoyer yi taxaw rek wax un ci formation ak euh, information yi ñu jàpp ne rek euh, bu ñu waxee formation dina xaw a laal lépp lu jëm ci wàllum aspect financier euh, tey ndax da ngeen di liggéey en partenariat ak ministère de la santé ak action sociale ngir vraiment mën a bénéficier wu ci yenn yi ba ngeen am formation yu mucc ayib bu ko defee euh, relais bi ñu ngi koy assurer mu jaar ci anam bu mucc ayib waaw bon dañuy jokkook quand même euh, état dañuy jokkook PNLT parce que euh, comme niñ koy waxee ñun ñoo bokk li nga xamante ni moom mooy euh, xeex mi. Mm-hmm. donc fokk ñuy jokkoo fokk ñuy waxtaan pour ñu bañ a am réero. maintenant réero boobu nag waruñoo waruñoo tere en tant que société civile ñu yëkkati suñu baat. donc euh, voilà wax ko bu fekkee yëf yi doxul voilà donc ni ñu amee euh, sañ-sañ di waxtaan ak ñoom di jokkoo ak ñoom di lëkkaloo ak ñoom parce que bu baaxee ñëpp la baaxal ñu ñun kese euh, te comme ni mu koy waxee tuxkat yi euh, suñu ay euh, doom lañ suñu ay xarit suñu ay voilà rakk ak yu demee noonu donc ñooñu nekkul ñoo xamante ni ñu bon lañ déedéet bonuñu mais bu ñu leen mënee protéger ñu protéger leen buñ leen mënee jox bonne information jox leen bonne information donc loolu mooy liggéey bi donc liggéey boobu nag état def ko ñun ñu def ko yëpp ñoo ci bokk yam mm-hmm. maintenant Euh, dañuy lëkkaloo di jël ay stratégie xool niñ koy defee nu mu gën a baaxee naka lañ ko war a mën defee pour que mbir yi wàññeeku loolu ay xalaat la yoo xamante ni dañ koy bokkandoo di ko defandoo di ko nasandoo euh, ak également di jàppalante parce que jàppalante boobu am na lu bari loo xamante ni listab def na ko ci réew mi mm-hmm. euh, ci surtout loi bi parce que euh, imprimé nañ ay ay ay support de communication baaxee ko état mm-hmm. euh, imprimé nañ également ay livret de poche yu loi bi pour jox ko policiers yi mm-hmm. baaxee ko état donc yu ci bari ak formation yi nga xamante ni defal nañ ko député yi à l'époque donc ba ñu gën a xam lan mooy luwa ak lu muy def ak yan impact également le mën donc muy ay jéego yu am solo yoo xamante ni listab moo ko def mais ba mu koy def defu ko parce que euh, état moo tax mais da ko def parce que population bee tax mm-hmm. te état tamit bu ko yoroon tamit da koy def mm-hmm. loolu moo tax vraiment donc lëkkaloo bi daal vraiment ci ci cadre boobu la mm-hmm. mais terewuñu quand même am nañ suñu indépendance suñu bëggee vraiment réagir donc dañuy réagir donc loolu rek vraiment lu pour man lu am solo la quoi. Euh, justement xam nañ ni di ngeen di farataal def euh, ay études di recenser tey boo ñu doon wax euh, ci li nga xamante ne moom moo di tuxub cigarette bi et particulièrement moo xam ci adulte wala ci jeunes yi ci jàngat yi ngeen di farataal def lan nga ñu ci a wax doon émission changé wala. waaw tey de moom mën naa wax ni euh, bon euh, données yi changé na mooy soit yokk na wala wàññi na waaw mais li gën a am solo mooy euh, données yi dafa dafa yokk mm-hmm. li tax mu yokk mooy dañu nekk ci jamono boo xamante ni Uh, phénomène bi dafa commencé duggu mooy xeetu cigarette yu bees yi nga xamante ni ñu ngi koy gis donc muy loo xamante ni vraiment lu Euh, lu lu lu xaw a doy waar la euh, et aussi euh, jëluñu ko woon en compte bu njëkk ba ñuy bind suñu loi mhm. ba ñuy bind loi bi bon xalaatuñu woon ni tey dina am ay chicha wala dina am ay cigarette électronique loolu moo tax prévoir uñ koon mais sinon euh, dinañ ko doon prévoir bàyyi ci xel mm-hmm. mais euh, néanmoins euh, terewul quand ñu ngi def ay étude di xool étude bu ñu mujj woon def ñu ngi ko defoon ci en milieu scolaire mm-hmm. parce que dañu gis ni tey quatre vingt pour cent ñi tux tey actuellement mm-hmm. ñu ngi jàngee tux ci école parce que ci école ba la ñuy yendu fa la ñuy nekk donc fa lañ koy jàngee lu ci bari moo waral tey ñun bu ñuy def suñu ay intervention donc ci école yi lañuy dem sensibiliser leen wax ak ñoom wax leen nañu moytu cigarette cigarette baaxul dépendance dafa gaaw lii lay joxe ci feebar lii lay def ak yu demee noonu donc loolu muy loo xamante ni pour ñun lu am solo la maintenant euh, chicha bi nag malheureusement ñu bari dañu foog ni du du alors que chicha bi moom moo gën moo moo raw sax cigarette parce que chicha li nekk ci biir moom li nekk beneen cigarette bi ñoom ñoo yem produit bi même la donc seen différence mooy lan seen différence mooy bii euh, dañ ko def ci këyit defar ko ba mu rafet de ko jaay paquet bële euh, dafa nekk ci benn appareil di jaar ci ndox loolu mooy seen différence maintenant euh, bële ni nga koy tuxee ak bii ni nga koy tuxee du nekk benn mm-hmm. moo tax nag chicha en général buñ koy tox soit dañuy nekk en groupe nekk ci ay xar ak ay xarit donc di waxtaan di foo di ko dox di ko paasante donc tiwo boobu ñuy paasante déjà au delà feebar yi nga xamante ni cigarette mën na ko indi mais am na également yeneen feebar yi ñuy wax les maladies contagieuses mm-hmm. yoo xamante ni donc mën na euh, dugg ci euh, comment dirais-je ci ci xeet googu mooy képp kuy tox chicha bu fekkee da nga am benn feebar moo xam tuberculose la euh, moo xam euh, grippe la euh, moo xam également hépatite la en tout cas maladie contagieuse boo mënti am ah, boo ko toxee boo joxee sa moroom moom it mu tox ci même tuyau boobu noonu mën nga ko ko wàllal te doo ko yëg mm-hmm. xam nga kon loolu ça veut que day nekk benn problème de santé publique loolu un deuxièmement mu nekk loo xamante ni euh, dañuy wax ni dafa nekk mode moo waral euh, xale yi dugg ci di di ko foowe ñii di ci photo wu mu nekk ci restaurant yi mu accessible mm-hmm. yomb ba vraiment ku nekk nga ci mën nga si jot loolu nag responsabilité état la parce que état moom moo fi autorisé chicha état moom moo bàyyi ñiy jaay chicha état moo yombal mbir bi ba vraiment ku ci nekk sa buntu kër mën nga ubbi sa magasin di jaay sa chicha du mujj fenn ah, parce que loolu yëpp vraiment kenn kenn prévoir ko donc muy nekk loo xamante ni lu am solo la ah mu nekk loo xamante ni vraiment lu am la donc euh, ñun euh, suñu rôle mooy ñu fexe ba vraiment euh, chicha boobu noonu mën a te lu koy dindi mooy lu loi am nañ loi bi nag malheureusement loi bi jëlu en compte chicha moo tax ñu am beneen arrêté ministériel arrêté ministériel boobu moo war a dindi chicha malheureusement arrêté boobu donc mu ngi bloqué wu boobu ba tey ñu ngi def lu ñu man pour que mu deñ mais tant que dañul chicha bi du fi jógee xale yi duñ jóg ci di ko tox même su fekkee xamuñu ko bon euh, xamuñu ko c'est parce que peut-être que communication bi des na ci côté boobu noonu dafa des ci côté boobu noonu même su fekkee bon dañ koy faral di wane ci suñu ay nataal mm-hmm. benn séance chicha yaa ngi koy tox ci tollu tolloog une heure de temps wala trente minutes wala mu ëpp ko mm-hmm. bu dee groupe ngeen nekk te loolu équivalent wu maanaam boo ko toxee ba jeexal yàgg ki tox euh, cinq paquets de cigarettes yi na yem moom chicha mm-hmm. donc boo toxee benn séance chicha ak parfum bu mu mënti nekk parce que chicha ay parfum la mhm. euh, mais cigarette si du change du changé odeur bi rek mooy changé ñu naan la bii menthe la bii fraise la wala yu demee noonu mais composition yi nekk ci cigarette bële moo ci nekk mhm. amul différence mhm. waaw euh, bi euh, dafa wala boobu léegi lan mooy expliquer blocage bi li koy li koy expliquer lu simple la pour man mooy euh, boo nekkee ci réew donc euh, nga am ay njiit yoo xamante ni vraiment bëgg nañ am euh, li nga xamante ni moom mooy comment dirais-je bëgg nañ yëf yi avancé dañ ciy taxaw boo amee ay njiit yi nga xamante ni vraiment bëgg nañ euh, population bi seen santé seen wér yaram vraiment jëm kanam dinañ taxaw ci lu mel nii maintenant nag bu fekkee am nga également ñoo xam ne amuñu volonté wala dañuy bàyyi xel trop defarkatu cigarette yi parce que defarkatu cigarette yi boo leen di bàyyi xel moom doo mës a avancé mm-hmm. parce que loo teg ñu teggi loo soxla ñu jox la maanaam mooy ñi nga xamante ni boo bëggee tey euh, hôpital tey tey ñu tabaxal la ko euh, de niveau un deux boo ci bëgg soo bëggee koppar tey ñu jox la ko mais ñoom seen intérêt moo leen fi bàyyi comme ni ma ko waxee mm-hmm. seen intérêt mooy ñu bañ a fexe jël ay loi yoo xamante ni da leen gàllankoor day yàq seen njaayu cigarette day wàññi seen chiffre d'affaires parce que ñoom li leen intéressé mooy business xaalis moo leen intéressé pendant ce temps là yow mi nga xamante ni yaay nguur euh, sey population ñu ngi tux ñooy yëkkati seen poste di jënd cigarette ñoom ñooy feebar ñooy amuñu moyen ñooy faatu donc vraiment mu nekk loo xamante ni euh, il faut que ku ci nekk xam vraiment ce ce rôle de responsabilité fan la toll mm-hmm. donc ñu ñu jàpp ni vraiment nguur moom mooy vraiment yor euh, moom mooy yor responsabilité population surtout ci wàllum wér-gu-yaram ak jàng donc yu ci am solo mais ci côté wér-gu-yaram vraiment tant nguur gi du jël ay dispositions yu war mm-hmm. donc lii du fi gaaw a jógee te bu fi jógewul feebar yi du fi jóge Euh, xale yi duñ jóg ci vraiment di euh, di dugg ci yu mel ni mm-hmm. parce que toxum cigarette dañuy faral di wax buntu la pour yeneen drogue yi mm-hmm. da commencé ci cigarette moo lay jëmee ci yàmba ak yu demee noonu nga commencé ci chicha mu yóbbu la également ci yeneen type de drogue mm-hmm. tey jii ma lay wax ne chicha bi am na leneen luñ ci rax parce que dépendance bi ak dose bi ñuy toxee boo gisee ni ko xale yi defee sax nga xam ni euh, foo lañ ko def mm. mais dafa dem ba seen organisme loolu doyatul ci ñoom léegi ndox moom la ñuy remplacer léegi par alcool pour que dose bi gën a saf mu gën a wex mu gën a neex mais yaa ngi yaa ngi drogué wu yaa ngi lor sa bopp te xamoo ko donc bés dina ñëw nga am ay jafe-jafe am ay gàllankoor am ay feebar yoo xamante ni euh, doo ko mën faj say waajur duñ ko mën faj bu ñu dajale woon li ñu yor yëpp euh, duñ ko mën faj donc après nga lor leen donc mooy feebar yi nga xamante ni mooy ay cancer ak yu demee noonu. mu mel ni entreprise euh, euh, euh, cigarette ils sont assez puissants ci fépp foo xamante implanté wu nañ fa alors. romb nañ ko seen puissance <laughs> seen na dayo mhm. seen puissance dem na ba ci yenn réew yi. industrie tabac moom mooy teg loi am loi bi mu bëgg ñu voté ko assemblée nationale. waaw seen puissance dem na ba mën naa lim benn dëkk muy Burkina Faso balaa ñuy am loi mm-hmm. Burkina Faso balaa ñuy am loi dañoo dugal seen loi ñoom euh, gouvernement bi industrie tabac moo ñoo génnee gouvernement boobu dugal beneen beneen loi maanaam dañ lay dañ lay dañ lay noot foo xamante ni yow euh, da ngay bëgg a fépp doo ko mën parce que dafa am foo xam dañ la fa téye loolu li koy waral mooy di leen bàyyi xel di leen boole ci say politique de santé euh, ay négociation di leen di di leen boole ci say euh, comment dirais-je euh, say mbir ak yu demee parce que boo leen boolee say mbir ñoom loo soxla nee naa dañ la koy defal mm-hmm. parce que quand même ils sont puissants loolu nag vraiment il faut nga am ay leader ay nit yoo xamante ni yu yu vraiment yu am volonté lañ yu taxaw mën a jàkkaarloog ñoom mm-hmm. parce que jàkkaarloog ñoom du wañ dara ci sa dayo du wàññi dara ci sa nguur teewul également li nga war a def da koy def mais teewul ñoom tamit en tant que entreprise taxe yu ñu la war a fay dañ koy fay mais teewul tamit ñi tox te commencé tox te nekk ay adultes majeurs et vaccinés mais dañuy tox mm-hmm. donc loolu noonu la mbir mi demee mm-hmm. Euh, euh, justement euh, Djibril Wele ci wàllu tur boobu sax ñu daal di ci taxawaat rek mu mel ni eh, bu njëkkoon doon nañu gis ñoo xamante ne eh, dañu xaw a nekk ay adulte am quinze jàpp jëm kaw mais mu mel ni donné bi tamit sànq ñu ngi koy den wax changé na tey ci ay information ñu ngi xam xamle ne eh, léegi yomb na nga gis ko xamante ne daanaka amul lu tolloog dix ans muy tur cigarette au vu et au su de tout le monde euh, malgré am na ay conséquences yoo xam ne mën na ko juru ci wérgu yaramam lu tax euh, ñu ñu ñu yegg à ce à ce point là. bon lu tax ñu yegg fa moom vraiment pour plusieurs raisons euh, parce que dañoo dañoo yombal mbir mi. Euh, dañoo jël ay loi respecté wuñu ko euh, dañoo bàyyi en tout cas defarkatu cigarette yi ñu nekk ci li leen neex di def li leen neex euh, te état du ci contrôler du ci wax dara mm-hmm. ñi ciy wax mooy ñun ñi nga xamante ni donc ñoo ciy yëngu di alerter population bi di leen wax nu mu demee ak naka la donc loolu je pense que responsabilité état la mm-hmm. responsabilité état la parce que tey bu yëfi àggee fii vraiment état moom moo deful lu mu war a def mm-hmm. parce que vraiment bu doon bu doon ci ñun kese la ñun ñi nga xamante ni peut-être dañuy yëngu ci yu mel ni euh, xëy na mën naa xam sax usines yëpp dañuy tëj comme ni ñu xeexee ba benn usine dem muy m mm. donc loolu il faut que vraiment comme ni ma koy sànq ñu am ay nguur ay autorité autorités yoo xamante ni donc yo am fulla lañ seen bopp parce que man je pense que am na ki am na ko am na ko ko faral ko doon faral di wax euh, nguur dafa war a tànn entre euh, population ak intérêt industrie tabac ban la siy jël fii koo ci wax dina la sama intérêt population moom soxal mais sauf que dinañ dinañ la si cabaxal ne la industrie tabac kat euh, ay nit ñoo fay liggéey ñi fay liggéey ay sénégalais lañ ak yu demee noonu mais boo comparé li nga xamante ne industrie bi mu ngi koy dugal mm-hmm. nga comparer ñi fay liggéey nga comparer ñaata doomu aadama lay faat at bu ne war nga xam ni quand même nekkul lu ñuy boole bi ci topp mooy ak luñ la mënti jox feebar yi yiñ fi bàyyi di nga ci def le double yow état pour mën a jël en charge mm-hmm. parce que tey fii ku fi am cancer mais bu la état jàppalewul doo faju bu état jëndul ay appareils yoo xamante ni pour détecter wala pour faj cancer la mais appareils yooyu noonu bu ko état jëndul mais do faju te loolu industrie tabac du ko du ko def mm-hmm. te industrie tabac moom moo indi jafe-jafe yooyu noonu parce que ñaari ñetti tuxkat yoo jël ñaar ñi dañuy am cancer ñaari tokkat yoo jël kenn gi dina dina faatu ci cigarette loolu kay ay xayma la ay chiffre la yoo xamante ni mu ngi fi ñëpp ak ci teg seen bët maintenant nag dinañ la wax ni ah cigarette du moom kese mooy rey am na yeneen facteurs yu ci boole ak i demee noonu ak yi demee noonu mais boo xoolee euh, jàngoro yi nga xamante ni cigarette mu koy joxee parce que substance yi cigarette am mhm. ay études wane ne ci biir cigarette am na plus de six mille cinq cent substances toxiques ak cancérigènes mhm. ci biir cancérigènes yooyu noonu daf ci am juróom fukk yoo xamante ni ñoom ñooy joxe cancer mooy lu ñu gis lu ñu xam dañ bu ñu la waxee ni euh, cigarette am na produit yoo xamante ni bu ñu la ko limalee ni mu ngi ci biir cigarette da nga naan neewu ci mënul nekk boo ko waxee tokkat da naan non du ma tox lii donc vraiment muy ay euh, goudron mu ngi ci nicotine mu ngi ci Euh, comment dirais-je monoxyde de carbone mu ngi ci benn euh, benzote mu ngi ci euh, acide c'est-à-dire dafa bëri tellement ay substance yoo xamante ni mu ngi ci boo waxee tokkat bi yaa ngi koy dox man toxuma ko mm-hmm. parce que bu ci nekkul woon wax dëgg yàlla man su may tox cigarette su ma bëggee bàyyi damay bàyyi mm-hmm. mais produit yooyu nekk ci moom mooy mooy tax nga dépendant dépendance boobu moom mooy tax yow doo mën a bàyyi jaaykat bi moo ko defaree noonu pour muy continuer vraiment di di jariñu sa kaw bi ci topp également boo ko bàyyiwul après daf lay indil ay loraange ak feebar gis nañ fii tukkat yi mais tukkat boo ko xoolee rek xam ne euh, boo ko rek xam ne moom commencé na déjà feebar parce que kuy tox yomb na xàmmee comme ni ma koy faral di waxee kuy tox mënul na bëtu parce que saxaaru cigarette ñëpp xam nañu nekkul saxaar boo xamante ni da ngay pare rek mu seey day des ci sa yére day des ci sa yaram day des ci sa gémmiñ ci xet gi boo ko toxee ci nekk dafay des pendant plusieurs euh, heures avant muy dem day collé wu ci miir yi comme ni waañ di mel noonu lay def sa yaram saxaar cigarette nag ak li mu comporté lépp ci ay substance foo jaar mu am lu mu def sa yaram parce que fi muy fi muy njëkk a jaar moo tax racole bi muy bi muy jaar mooy sa put war dem ci xool bi donc lépp ci lay absorbé wu moo tax boo xoolee xool kuy tux ak ku dul tux da koy ràññee vite fait boo xoolee tuxkat ak ku dul tux yomb naa xàmmee xoolal bët yi day faral di xonk xoolal euh, tun yi day faral di ñuul mm-hmm. xoolal euh, bëñ yi day faral di euh, jaune mm-hmm. xoolal wee day faral di ñuul li koy waral mooy Euh, cigarette yi dafa am ay type de goudron ak nicotine yooyu mooy mélangé wu ak sa deret mooy tax deret bi di ñuul ñuulaay boobu nag mooy tax yow nga commencé changé soppeeku nga xeesoon commencé ñuul hmm, Euh, nga commencé sëkkat ah parce que mu ngi commencé di di la lor nga commencé am ay boutons ça veut dire que am nga dépendance pour nga bàyyi day xaw a jafe-jafe voilà day metti donc vraiment muy euh, ay jafe-jafe yoo xamante ni maintenant nag ñu bari liñ ci xam mooy cancer cancer mooy mooy yu mujj yi cancer li nit ñi xam mm-hmm. alors que ay bopp yu mett ak c'est-à-dire cigarette mooy euh, vingt cinq maladies directes boo commencé tox mun nga koy jànkonte vite fait ay vingt cinq maladies donc yoo xamante ni identifié nañ ko yi yëpp ay feebar la mm-hmm. maintenant nag euh, xëy na mën na ne bañ a nekk feebar si ñenn ñi maintenant feebar yooyu ngay xeeb mooy dem di yokk yeneen di yokk yeneen indi ay emphysème indi ay bronchite indi ay pneumo indi ay dem dem ba si ci ci góor mu lay indil ay jafe-jafe pour nga sëy mhm. pour parce que cigarette si mooy dem ba boucher say artère fi nga xam ne deret bi fa a jaar mhm. moo tax ay études wane woon ni Sénégal 35 pour cent des impuissances sexuelles donc ci tuxkat son sont liées au tabac. Mm-hmm. te loolu tant que bàyyiwuloo dara mënu ko faj. Mm-hmm. bu la neexee nga dem ci fajkatu olof ak foo mënti dem tant que bàyyiwoo cigarette bi ça ça veut dire que boo jëlee garab. di continuer di fatt say artère mm-hmm. mais euh, amul benn njëriñ donc dafay continuer donc vraiment muy euh, dégâts yoo xamante ni euh, cigarette mu ngi koy def valable également pour chicha bi ak maladie contagieuse yi ma wax léegi léegi donc loolu yëpp soo ko dajalee ñu xam ni vraiment dañu am population boo xam ne jeunes yi ñoo ci ëpp malheureusement mënuñoo compter ci jeunes yi parce que jeunes yi ku leen bàyyi ñu dem fii ak diir moitié bi danañ faatu ndax cigarette Euh, mu mel ni aussi xale yi jigéen yi tux euh, cigarette moo xam cigarette la moo xam chicha bi nga xamante ne wax nga ne moom moo gën a dangereux sax lii di cigarette mu mel ni ñoom tamit euh, seen pourcentage tey élevé na waaw parce que euh, li ko waral mooy euh, kii bi euh, kiiw chicha bi moo ko waral mooy nouveau phénomène chicha bi mm-hmm. phénomène chicha bi parce que defarkat bi li mu li ko présenté mooy que du cigarette Mm-hmm. benn ñaareel bi mooy ku bëgg a bàyyi cigarette da ngay toog shisha alternative alternative donc loolu moo waral vraiment nit ñi song ko ak aussi la fait mu nekk benn mod ba nit ñi di ko gis ci film yi nit ñi di ci photo euh, da ngay gis koo xamante ni sax bu demee restaurant li muy commandé moom mooy shisha du lekk du naan mais shisha bi parce que day bëgg foto photo ay xaritam wane ni moom effet de mode voilà effet de mode donc mooy mooy dugal moo ci dugal ñu bari ba Euh, tey jii mën naa wax ni vraiment euh, jigéen ñi quatre-vingt-dix pour cent euh, donc jigéen ñi ñu ngi koy ñu ngi koy utiliser parce que ñoo jàpp ni du lore dañoo jàpp ni du cigarette dañoo dañoo jàpp ni du def dara fookaay lañ ko jàppee rek fookaay lañ ko jàppee bon ñi ko xam dëgg peut-être mën nañ ko xam mhm. mais ñi nga xam ne xamuñu ko donc loolu moo tax ci xayma yu ñu def études yu ñu wane bu njëkk góor ñi ñoo ëpp lu ñuy tox parce que góor ñi si bi bon ñëpp xam nañ ñu ngi ko doon utiliser amul benn problème mais tey jii bu njëkk bu nga gis jigéen buy tox da ngay dem baat yi wala yenn milieu yi yenn endroit spécifique pour nga gis mais tey jii da ngay dox ci mbedd bi euh, dugg ci ay oto gis jigéen ñi di dox sans problème mm-hmm. pourquoi parce que ñu ko commencé ci ay chicha mm-hmm. bon mu jóge jóge fa dem ci cigarette parce que jàpp nañu vraiment du nekk lu lu graaw mm-hmm. donc loolu nag moo waral tey yëf yi euh, jéggi dayo jigéen ñi dem ba renverser tendance su góor ñi pratiquement ci chicha euh, pourtant il fut benn année boo xamante ne en 2018 daal di koy yokk bu 65 pour cent ndax euh, loolu porté na waaw yokk nañ ko yokk nañ ko jëlee ko quarante cinq yóbbu ko ba cinq pour cent donc de vingt pour cent am na aussi tuuti impact si njëg li parce que ñun dañ koy faral di wax dañ mm. bu dee yokk taxe cigarette du impact si njëg li amaluñu njëriñ ñun état la amal njëriñ parce que kopparu état lay yokk mais bu dee imp euh, yokk cigarette taxe cigarette mm-hmm. dafay laal njëg dina am njëriñ parce que dina impacté ci prix bi bu impacté ci prix bi mhm. dina tax xale yi duñ ko mën si jot mhm. dina am koo xamante ni dootu ko mën a jënd wala même buy jënd tamit dootu jënd comme li mu waree mhm. donc loolu mooy double avantage bi nga xamante ni euh, cigarette donc euh, yokku tax cigarette da koy def mu euh, yokku keesu état mais wàññi prévalence voilà dina yokkee seta mais day wàññi prévalence wàññi prévalence nag mooy wàññi feebar yi nga xamante ni moom mooy lié au tabac mm-hmm. donc dafa am double avantage mm-hmm. malheureusement nag yokk bi warul yam ci soixante cinq pour cent donc am nañ ay textes comme UEMOA CEDEAO CEDEAO da ko ubbi amul limite moo tax yenn pays danañ ba cent pour cent mm-hmm. bon ça que Sénégal bu ñu neexoon du ñuy am cinq pour cent bu la neexoon dem cent pour cent cent cinquante pour cent. waaw amuñu am l' mooy na nga ko taxé comme ni ko France defee France chaque année dañuy taxé cigarette jël nag benn fonds boo xam ne dañ koy répartir. benn pour centage yóbbu ko ci accident benn pourcentage yóbbu ko ci euh, euh, kii comment dirais-je protection sociale beneen euh, pourcentage yóbbu ko ci sensibilisation ak yu demee noonu mm-hmm. donc muy loo xamante lu am solo la loolu nag lañu demandé woon fii Sénégal ñu fexe am vraiment benn fonds boo xamante ni euh, di ku bëgg a toox di nga mën a bàyyi toox mm-hmm. ku bëgg a signaler fekk du fi ñàkk ku bëgg formation fekk du fi ñàkk euh, ku bëgg également euh, bàyyi fekk ñu def benn mettre en place benn centre de sevrage tabac dina ci baax mais aussi jàppale ñi xamante ni ñoom ñooy PNLT parce que am programme de de lutte contre le te dotewoo ko de moyens mais moom ak ñoo yem mm-hmm. donc day mel ni rek euh, voilà donc day day revenir toujours ci engagement bi ñu waxoon mm-hmm. waaw. ci ay recherche dañu des léegi ba léegi ci wàllum chicha bi ak nu ngi xam ne lu ëpp 400 bar a chicha enregistré nañ ko ci Dakar lim boobu boo ko déggee Djibril Welle lan la lay def. ah xanaa tiit rek <laughs> tiit rek euh, tiit te euh, tiit tamit ci suñu ay euh, ay ay doom parce que. Euh, quatre cent baar bokkul ak baaru clandestin yi nga xamante ni dañu làkku te gis ñu leen mm-hmm. euh, te tey ji mën naa la wax ni daanaka restaurant boo dugg euh, ñaari restaurant yoo jël benn bi mu ngi làqatu di di jaay chicha parce que dafa dox. moo tax ma exister parce dafa am ay baar yoo xamante ni dañ leen ubbi uniquement. pour chicha jaay ñu lekk jaay ñu naan jaay ñu sàngara ah. chicha rek la ñuy def parce que voilà parce que dafa dox mm. dafa dox parce que xale yi dañ ko bëgg xale yi dañ ko gëm donc moom moo waral loolu léegi nag loolu nag moo wax dëgg yàlla pour jëlee ko fi yomb na mm-hmm. pour jëlee ko fi mooy nañu fexe juste ba numéroté li nga xamante ni mooy arrêté ministériel bi nekk ci table gouvernement signé nañ ko ñaari ministre yi nañ ko mooy ministre du commerce ak ministre la santé li des mooy numérotation bu dee nag numérotation texte dafay jël ñaari at ñett at ma xam ni baaru ficha yi dana yokk xale yi danañ ko ne dox te xale yi danañ faatu loolu nag responsabilité état la mm-hmm.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 ne bërëb public la tey boo ñu doon defal euh, benn évaluation justement par rapport ak seen cette loi boobu 2014 euh, 2022 fan la fayiree ndax amaanama euh, li mu ñuy tux yokk na te pourtant loi bi mu ngi fi am na tamit ay restrictions. waaw loi bi de wax dëgg yàlla en 2014 dañ ko voté woon. Mhm. donc décret d'application yi génn en 2016 ñu commencé woon vraiment di ko appliquer nekkoon ci dynamique bu am solo tey nag mën naa wax ni loi bi lu ci bari moom bon am na quand même ay pàcc yoo xamante ni appliqué nañ ko euh, nit ñi teg nañ ci seen bët mooy bu njëkk daan nañ gis ay euh, publicité ay kiosque yi jaay ay cigarette un peu partout mm-hmm. loolu loi bi dindi na ko fi euh, loi bi également tax na ba paquet du cigarette yi changé léegi gisatuñu abus dangereux pour votre santé parce que comme ni ñu koy waxee abi mooy nga ëppal ci alors que cigarette benn bi rek baaxul waxatuma laak nga abusé wu ci mm-hmm. Euh, bi ci topp mooy taxes yi au moins am nañ benn augmentation même su fekkee doyul war nañ ko mën a yokku maintenant yi ci des mm-hmm. euh, comme interdiction de fumer dans les lieux publics dafa des parce que bërëb yu bari am na ñu am signalétique am na ñu amul donc ñi amul la moo leen am xëy na peut-être état moo deful rôle am ci côté boobu mm-hmm. parce que bu defoon supervision génn xool euh, di sanctionner parce que loi bi tamit dafa prévoir ay sanctions te maanaam ñu ngi wax sànq sax koppar mais Euh, koppar am na fi parce que tukkat yi ni ñu toll ci réew mi yëpp mm. mais bu doon ku violé ñu euh, nga fay junni mais loolu tamit euh, ay rentrée d'argent la pour état ah. ay rentrée d'argent la pour état dinañ ci mën a jàppale ñi nga xamante ni ñooy seen programme bi nga xamante ni teg nañ ko mm. pour mu mën a jàpp ci li nga xam ne mooy cigarette dinañ mën a aussi jàppale centre yi nga xam ne dañuy accompagner ñi bëgg a bàyyi donc disposition boobu noonu malheureusement ñu gis ni vraiment respecté wuñ ko comme il le faut établissement yu bëri muy euh, école euh, muy euh, université yi muy li bërëbu jàngale liggéeyukaay administration muy également hôpital da ngay dem sax yi donc ñu fay dox alors que loi bi da ko da ko interdire mm-hmm. donc loolu nag vraiment ak établissement yi nga xamante ni recevant du public mooy restaurant bar hôtel ak auberge donc yooyu vraiment muy loo nekk loo xamante ni Euh, am na ñoo xam ne am nañ signalétique mais am na ñoo xam ne amuñu ko mais ñu ci bari 60 pour cent ñi am signalétique ay signalétique yu nekkul ci norme la ñu am mm-hmm. maanaam mooy bëgg naa ko ma bind sama benn crédit rek dafa interdiction de fumer wala ici espace non fumeur mm-hmm. xam nga euh, signalétique dafa am arrêté ministériel bu wax nu mu war a mel niñ ko war a bindee parce que dafa am toujours article loi bi ak euh, sanction bi bi bi ñu prévoir. Mm-hmm. malheureusement loolu bon euh, lu ci bëri ci Dakar gisuñu ko donc ça veut dire que état moo deful donc liggéeyam ci côté boobu bu gars yi doon def ay visite di xool ku respecté wul ñu sanctionné mais gars yi bu boobaa dinañ respecté mm-hmm. donc boobu mooy interdiction de fumer dans les lieux bi ci topp mooy disposition bi nga xamante ni dafay organiser njaayum cigarette parce que boo boo génnee cigarette boutique yi. wala nga tere ñuy jaay cigarette ci rayon deux cent mètres établissement yi ma lim léegi parce que loi bi moo ko wax loi bi moo ne euh, kenn du tox kenn du jaay cigarette diggante établissement yooyu ak deux cent mètres mm-hmm. kenn wala ko jaay mais tey boo génnee fii léegi jaaykatu kafe bi day jaay cigarette soo génnee léegi ci kanamu école am na boutique buy jaay boutique bi day jaay cigarette donc pour que vraiment ñu mën a xeex accessibilité boobu noonu il faut que cigarette soos noonu mën a génn ci boutique bi ñu mën ko déjee li nga xamante mooy débit de tabac comme ni ñu koy defee ci yenn réew yi débit de tabac nag buñ ñu ko waxee mooy kiosque la boo xamante ni kenn du fa jaay kafe kenn du fa jaay bonbon kenn du fa jaay leneen cigarette dong kulung lañ fay jaay te kenn amul droit def publicité ci biti ci biir rek nga mën def publicité mm-hmm. maanaam kon ku fay ku ku dul tukkat mënoo xam nu mu mel accès bi mm-hmm. xale également mënu fa ñëw di jënd cigarette parce que bu amul 18 du ko mën mm-hmm. donc noonu la ñuy organiser njaayam cigarette loolu nag malheureusement disposition boobu noonu war a génnee cigarette boutique bi war a également euh, fexe ba cigarette ñu bañ ko di ko jaay un peu partout ci coin de la rue mais disposition boobu mooy décret bi nga xamante ni moom également moo bloqué depuis 2018 ci table secrétariat général du gouvernement pourquoi parce que malheureusement euh, comme ni ñu koy waxee soit amuñu volonté amuñu engagement wala dafa am loxo bu ko fa téye mm-hmm. waaw loxo boobu nag mën na nekk industrie tabac parce que tamit bu ñu fàtte ni industrie tabac maye na fi un milliard voilà ci fonds force Covid 19 donc seen un milliard yooyu xëy na un milliard moo tax <laughs> waaw moo tax xëy na euh, décret bi ba tey jàllagul mais l'ISTAP quand même mu ngi def ay jéego di gis ay kilifa diine pour fexe yëf yi mën a bouger euh, il y quelque temps xawoon na bouger réeroon na feeñaat mm. jékki-jékki delluwaat ministère ñu am luñ ci changé mu delluwaat secrétariat général du gouvernement tey mën naa wax ni bu tamit foofu la réeré. Euh, yaa ngi wax euh, loi bi am na ay sanctions yoo xamante ne eh, ku wàcc yoon dina dal sa kaw terewul ñu li ñuy gis ñu koy gis chaque jour ndax jàppaloo ne dañu war a corsé waat euh, daan wala ñoo xoolaat ka bu baax a baax parce que daani yi apparemment servirul à grand chose. waaw en fait daani xam nga du pour man sax euh, euh, dama jàpp ni daani dañ ko dañ ko deful daani daani am na solo de mm. daani am solo la parce que tuxkat bi cinq euh, junni ngay fay buñ la jàppee ngay tux ci espace public benn tuxkat pour benn cigarette boo jëndee juróomi dërëm mm. buñ la si jàppee nga fay junni yaakaar naa ne beneen yoon booy tuxaat di nga xool bu baax fi ngay tuxee loolu benn la ki nga xamante ni moom mooy resevoir tuxkat bi mu ngi war a fay entre cent cinquante mille ba trois cent mille francs maanaam fanweeri junni ba xaw ma euh, en tout cas xaw ma nu ñu koy waxee euh, en tout cas ba trois cent mille francs mm-hmm. loolu mooy sanction yi nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy yor établissement bi di borom établissement bi recevoir toxkat bi te toxkat bi toxee ci bërëbam mm-hmm. bu tox fu toxkat bi fayee junni moom cent cinquante mille ba trois cent mille la war a fay mm-hmm. kon kay ça veut buñ ko appliqué bu baax mais amul benn établissement fii bu ko dul respecté parce que fépp fu tukkat bi di fayee junni yow cent cinquante mille ba trois cent mille francs ngay fay donc moo lay war ni bu état defoon liggéeyam comme il le faut soxlawul ñuy def visite sanctionnel benn wala ñaar wala ñetti établissement publiquement comme ni ko France defee woon à l'époque publiquement nga sanctionné leen kenn dootul tux établissement public parce que man mi moom sama restaurant yow boo ñëwee violé ko ni ngay fay mais man borom restaurant bi cent cinquante mille laay fay kon man maa lay njëkk a wax fayal mm-hmm. boo taalee maa lay njëkk a wax fayal maa njëkk a strict mm-hmm. malheureusement nag ñoom ñu war a strict comme état ñëwul état sanctionné wul mais ñu boole ci Chicha di jaay. waaw euh, sànq euh, yaa ngi ko doon wax euh, cigarette nit ñi dañu jàpp ne cancer rek lay jur wala lool rek lañ ci xam mu mel ni danger bi gën na profond wax nañ tuberculose ak yenn maladie yoo xamante ne ay maladies infectieuses lañu tey xanaa loolu moo waral ci journée mondiale sans tabac bi ñuy célébrer le 31 mai de chaque année ngeen choisir comme thème le tabac une menace pour notre environnement parce que li ñuy recevoir. ci mégot de cigarette par année euh, xayma nañ ko ci ay tonison waaw parce que dañu jàpp ni cigarette du yem rek ci ki koy tox cigarette dem na ba euh, day lor suñu gàncax mooy environnement bi donc euh, loolu bañ ko gisee organisation mondiale de la santé moom mooy tànn li nga xamante ni moom mooy thème bi donc mu gis ni vraiment euh, ak changement climatique bi nga mm-hmm. xamante ni ñu ngi koy wax euh, vraiment ren baaxoon na pour ñu waxtaanee li nga xamante ni mooy moom la cigarette di def ci suñu environnement parce que environnement boobu nag ñu ñëpp ci la ñuy dund voilà muy environnement boo xamante ni vraiment dañ ci war a dañ ko war a sàmm waaw parce que bu dee dem na ba cigarette jaay ko cigarette yi dañuy soxla garab pour defar seen ay cigarette mooy maanaam ñu ngi lor environnement mm-hmm. bu dee également dem na ba jaaykatu cigarette yi képp ku tux sa cigarette da koy sànni ci mbedd mi mu war dugg ci suuf si donc war a yàq si war a yàq suuf si war a polluer ndox ah ak yu demee noonu donc loolu moo lay wan ni également war nañ ko xoolaat bu demee ba chaque at bu ne six cent millions ci ay garab dañ leen di faat jox leen jaay leen ñi nga xam ne ñooy industriels yi ñu war cee defar seen ay cigarette donc vraiment bu ñu ci jëlul ay mesures kon ça veut dire que des na tuuti dootuñu desee garab dootuñu am environnement bu baax mm-hmm. te environnement bu baaxul nag xam naa ni ñu ñëpp dinañ ci loolu loolu moo tax OMS vraiment jagleel ko ñu mën ci wax wane ni kat cigarette yamul rek ci conséquence sanitaire yamul rek ci ki koy tox mais dafay lor également environnement bi te bu loree environnement boobu noonu mooy gàncax gi ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp. Mhm. beneen bi mooy euh, surtout ci toujours ci côté environnement euh, dëkk yi nga xamante ni dañuy bay cigarette dañuy bay tabac parce que tabac quand même cigarette euh, garab la. Ah, feuille tabac garab la si boppam mais garab gi si boppam moo am nicotine nicotine googu noonu muy saxaale ci garab gi bu duggee ci suuf si maanaam fi ñu koy bayee ci boppam fépp fu ñu bay cigarette kenn mënatu fa bay dara parce que suuf sa yàqu na suuf soos kenn mënu ci bay mboq dugub ceeb ak yu demee noonu parce que suuf si dafa toxiqué dañ ko voilà dañ ko polluer ba mënatul def dara donc moo moo tax vraiment bon dëkk yu koy def euh, peut-être ñu ngi nekk vraiment di fexe am ay mesures alternatives parce que aussi booy bàyyiloo nit mbayum cigarette mhm. na fekk quand nga am nga teg dara ci loxoom mhm. bon Sénégal yàlla dimbali nañu quand même Casamance lañ ko defee euh, léegi quand même euh, wàññeeku na bu baax pour ne pas dire amatul mais quand nekk na loo xamante ni vraiment dafay yàq parce que yow mi koy bay di dugg foofu di fa nekk ak say loxo ak say tànk même de dalay euh, conséquences yi dalay dal mm-hmm. waxatuma la ak euh, suuf si gàncax yi ak euh, ndox mi mm-hmm. donc vraiment muy thème bu am solo mm-hmm. ñoo communiqué ci wax ni kon ça veut dire que responsabilité yi dafa commencé yaatu yamul rek kon ça veut dire que ci ministère de la santé day dem au delà laal ministère environnement bu demee commerce laal njaayum cigarette bu demee industrie laal mbirum industrie bu demee économie laal mbirum taxation donc dafay yaatu nekk loo xam ne yëfu yëfu santé kese la wala yëfu économiste kese la mais dafa laal pàcc yëpp en psycho social psychologie et cetera et cetera. Euh, yéen ligue bi ngeen amaloon benn plan stratégique euh, ñu daal di koy doon ñu àpp ko euh, deux mille vingt et deux mille vingt quatre tey ñu ngi ci deux mille vingt deux boo ñu doon defal évaluation par rapport ak seen objectivité yi doonte desal na leen ay at lan nga ñu mën a wax ki seen plan stratégique boobu. waa plan stratégique moom wax dëgg yàlla bon document la boo xamante ni. Euh, def ñu dimbali aussi pour ñu xam vraiment fu ñu jëm mm. voilà donc euh, parce que tamit euh, booy xeex mbir voilà il faut vraiment nga am nga am benn plan d'action voilà xam noo koy defee foo koy defee ak yan moyen ngay utiliser donc loolu moo waroon vraiment ñu mettre en place plan stratégique bi bon plan stratégique bi ñu ngi koy dérouler en fonction vraiment moyens yi nga xamante ni donc moom la ñu am euh, donc di ko dérouler euh, mën naa wax ni nag def nañ ci lu bari mhm. ci wàllum formation d'ailleurs ci plan stratégie boobu la ñu ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu ay euh, point focaux tey ba placé leen un peu partout donc ci ci région yi euh, ba tey ñi ji may wax yow nii ñu ci bari muy Saint-Louis muy Kaolack voilà def nañu ay sorties def ay intervention ci journée mondiale bi donc muy loo xam ne dañ koy rafetlu bu baax maintenant plan d'action boobu également moo ñu moo tax également ñu commencé woon def plaidoyer pour le financement de la santé particulièrement donc le financement de la lutte contre le donc si la ñu rencontré député yi giseeg vraiment yenn autorité yi pour fexe ba yokk ñu yokk taxation yi pour mën a renforcer li nga xam ne moom mooy financement euh, santé jaarale ko également ci xeexum cigarette donc muy en tout cas ay jéego yoo xam ne def nañ ko maintenant nag xam na lu des lu bari mm-hmm. voilà li des nag comme niñ koy waxee voilà donc euh, dañuy xool ak suñu ay partenaires ak également parce dañoo nekk kuréel goo xamante ni malheureusement ak euh, ni ñu toll ci réew mi ak yëpp ak lu ñu jot a def bon mérité nañ quand am subvention état gëstuñu parce que lu lu bari li ñuy def nii euh, waruñu ko def. Mm-hmm. rôle état la ñun ci sensibilisation lañ waroon yam ak ci alerter mais bu ñu demee ba di def ay formation di former ay député wax dëgg yàlla bon euh, loolu quand même responsabilité état la war a nekk maintenant nag ñun xaaruñu ci état. bon dañuy def li nga xamante ni moom la yoo def donc participer également pour que changement comportement yooyu bu amee donc ñu ñëpp dañ ciy gis suñu bopp parce que tuxkat yi quand même nekkul nekk mm-hmm. ñu ngi euh, xarit suñu ay doom suñu ay frère ak yu demee noonu donc suñu leen protéger donc suñu bopp la ñu mm-hmm. loolu moo tax vraiment donc plan d'action bi donc ñu ngi koy doxal en fonction donc vraiment moyens yi nga xamante ni moom la ñuy euh, disposer même su fekkee doyul parce que boo xoolee plan d'action bi dafa communication mm-hmm. communication nañu dafa cher pour def ay émission nga war a fay pour def ay publicité télé xam na ñi donc yombul même pour élaborer ay support de communication yombul mais quand même euh, euh, avec quand même partenaires yi nga xam ne ñu ñuy jàppale voilà ci as néew li nga xamante ni donc ñu ñu koy jox voilà ñu ngi ciy def en tout cas liñ ci mën pour que vraiment yëf mën a jëm kanam. Ah, tey kon euh, bu ngeen sañoon lépp jëm ci wàllum budget wala jàppale leen euh, maanaam ci wàllum koom-koom bu ngeen déroulé bu ngeen ministère a yokk loxoom. waaw xam nga ministère sax moom déjà li muy jox programme doyul waxatuma la ak moo tax ñuy le plaidoyer pour ñu yokkal leen parce que programme bu amee ay moyens wax dëgg yàlla daa mel ni ñun ñoo moyen rek. Mm-hmm. parce que lépp lu ñuy def ñoo koy defandoo ensemble. donc comme ñoo koy defandoo ensemble wax dëgg yàlla euh, dañuy ñaan rek nguur gi bàyyi leen xel parce que programme la boo xam ne comme ni ko directeur de la prévention docteur Mamadou Ndiaye waxee woon. Mm-hmm. ci benn euh, activité. nee na benn programme boobu rek moo nekk biir ministère boo xamante ni moom mooy indil xaalis état mooy programme tabac à travers tax taxation à travers amende cigarette yi cinq mille cinq mille ak cent cinquante mhm. donc kon ça veut dire que programme la boo xamante nañ ko def fayda fulaal ko mhm. euh, jox ko àkkam malheureusement programme bi nag moyen mi bariwul ay euh, voilà donc benn budget de fonctionnement la yor donc pour mu am ay activité il faut que programme bi dem wuti ay bailleurs ak ay partenaires xam nga loolu tamit dafa xaw a doy waar mm-hmm. euh, bi ci topp mooy am nañ possibilité renforcer moyen programme bi à travers plaidoyer bi ñu defoon ci fonds tabac bi donc fonds boobu vraiment yokk njëgu cigarette si rek mën nga am fond bi te fond boobu dina mën a vraiment renforcer euh, programme bi parce que programme bi yemul rek euh, programme national d'accord mais am na ay comités régionaux maanaam dem na ba ci région yi mm. mais région yi bu dee Dakar moo doxul yaakaaruma ni région yi dina dox parce que amuñu moyen pour pour mën a dox mm. justement ngeen euh, génn ci seen célébration bi di journée sans tabac le 31 mai euh, mu mel ni bi la yoon euh, seen yi dafa xaw a timide lan moo ko waaw parce que ñun bi yoon ñun ñoo jël décision ne vraiment dañuy bon même bu fekkee cérémonie officielle amoon na dañu waxoon ni duñ ci dem duñ ci dem parce que dañoo amoon suñu ay raisons euh, dañoo constaté ni vraiment depuis at yu weesu yëpp euh, dañuy def la même chose li ñuy def mooy cérémonie officielle wax dem voilà donc ñun bu ñu ñëwee day mel ni ñun dañ ci ànd voilà moo tax ren ñu décidé ni te wax nañ leen ko ah nañ leen ko vraiment ba ñu xam ko wax nañ leen vraiment ñun ren moom euh, dañu bëgg demal suñu bopp def taxaw seetlu mm-hmm. xool yëfi yi euh, fi mu jóge ak fi mu toll nii ndax am na avancement euh, ndax am na ay blocage mm-hmm. fan la blocage yi nekkee loolu nag bu ñu ko defee ñoom la ñuy dimbali parce que tamit mënoo nekk ci nguur di ko xeex ba kii di ki nguur mm-hmm. waaw donc loolu ñun ñoo ko mën a def moo tax tamit ñun rek ñoo ko mën a wax loolu moo tax vraiment ñu organiser euh, rencontre avec la presse mm-hmm. aussi c'était également tamit pour euh, euh, occasion pour indexer ministère de la santé parce que vraiment seen taxawaay ci mbir mi tamit dafa xaw a sedd dafa des lu bari bari bari waaw te vraiment ñoom ñoo porté woon loi bi ak ki fi nekkoon muy Eva Marie Coll Seck mais malheureusement euh, ki fi jógee nii te yàggul bon euh, bokk na vraiment ci li ko gën a sooxel mm-hmm. parce que euh, jëmaliw ko kanam deful vraiment li war ci mbir mi loolu benn la moo tax vraiment ñun tamit dañuy interpeller ki nga xamante ni moo ko remplacé muy docteur Marie Xemes ngoom mu fexe moom it topp tànku docteur Eva Marie Coll Seck mm-hmm. koo xam ne ñun dañ koy rend hommage mm-hmm. parce que bu Sénégal tollee fii tey ba ñëpp di ko xool euh, mu nekk référence c'est grace a une grande partie vraiment ak moom mm-hmm. parce que moom moo fekk loi bi a euh, biir ministère am yóbbu ko assemblée nationale voilà donc vraiment waa défendre ko vraiment yóbbu ko ba vraiment loi boobu tey moom la ñuy coow di ko coow un peu partout ci àdduna bi léegi bu dee vraiment ñu ko succédé defuñu dara li war bon ñun dañuy taxaw ne defuñu dara lu war mhm. te dañ ko def parce que tamit vraiment euh, si secteur de la santé la bokk la te ba pare euh, dafa nekk di def ay jafe-jafe parce que cigarette lu muy rey amul benn feebar bu koy rey ci àdduna bi mhm. li cigarette di rey ci àdduna bi moo ëpp li euh, tuberculose di rey moo ëpp li accident de la route di rey moo ëpp li sida di rey et cetera et cetera booleem boolee ñoom ñëpp li cigarette di rey moo ëpp mhm. waaw te cigarette li muy rey euh, bokkul ak tukkat yi kese mais boo xoolee ñi nga xam ne sax dañ dul tox daanaka neuf cent mille ba huit cent mille personnes dañuy faatu at bu ne mm-hmm. parce que dañ leen toxloo dañ leen xër saxaat si toxuñu parce que dañoo nekk ci kër gi nekk seen jëkkër wala seen ay jabar euh, nekk ak seen yooyu doom dañoo dem ci bërëbu liggéeykaay kii kii liggéey ki ki ñuy liggéeyee di leen xër mhm. wala ñu nekk ci restaurant borom restaurant bi di dox ñoom ñu nekk ay serveur wala également ñu nekk ci école bi donc ñu leen di doxloo donc environnement yooyu noonu moom moo waral vraiment loi bi ñëw pour corriger donc inégalité yooyu parce que man mi dul tox mais bëgg naa dem resto comme ñëpp mais bëgg naa tamit su ma demee ma nekk ci restaurant boo xamante ni vraiment environnement bi dafa favorable ba vraiment damay lekk naan dara amul benn saxaar bu may lor mais loolu nag vraiment bu ko loi deful bon je me demande lan moo koy def donc vraiment euh, côté boobu noonu vraiment euh, ñu ngi alerter ministère mu bàyyi xel ci loi bi parce que bàyyi xel ci loi bi mooy wàññi dégâts yi. dégâts wàññi dégâts yi mooy wàññi feebar yi mooy wàññi ñi faatu at bu ne mooy wàññi également lorange yi ak aussi wàññi investissement bi nga xam ne nguur mu koy def chaque année pour prendre en charge les maladies liées au tabac. Euh, tey bu boobu ndax euh, di ngeen di am euh, dem ci yenn établissement def journée de sensibilisation parce que wax nga ko sànq seen cible ci bëri ci au niveau des établissements scolaires la donte tey nit a ngi tux sax demul école wala amagul sax âge dugg école. waaw bëri na ci. Euh, suñu ay activité lu ci ëpp ci école lañ koy defee lu ko waral mooy comme ni ma ko waxee ay étude dafa wane ni quatre-vingt-dix pour cent euh, des fumeurs actuels ñu ngi jàngee dox ci école bi donc cible bi industrie tabac lu mhm. ay mag ay xale lañ comme ay xale lañ xam nañ fi xale yi ne na leen fa fekk mhm. loolu moo waral vraiment donc ñu ciblé école yi maintenant nag école yi yu ci bari bu njëkk dañuy ciblé école dem mais dem nañ ba benn instant école yi si boppam ñoo ñu doon sollicité di ñu woo à travers seen ay activités de Fosco wala yu demee noonu. Mm-hmm. donc ñuy def ay sensibilisation dem na ba tey euh, ak ministère de l' éducation nationale ñu ngi nekk di xool ñu ñuy intégré ci biir euh, curricula yi de formation yi mm-hmm. benn module nga xamante ni taba mm-hmm. parce que am na benn niveau ba rekk defee ay bexem ak yooyu dinañ ci jàng tuuti taba mais bi pa dañu bëgg vraiment fexe ba bon loolu defnañ ko def nañu atelier bi euh, élaboré nañ vraiment référence yi ak yoon donc ñu ngi def plaidoyer bi pour que mu mën a jàll boo defee ñu mën a intégré benn module tabac ci li nga xamante ni bu ko defee xale yi très tôt dinañ xam lan mooy cigarette lu muy def euh, yan conséquence lay indi ak yu demee noonu donc muy nekk loo xamante ni vraiment lu am solo la donc loolu daal vraiment mooy suñu activité phare au delà euh, comment dirais-je formation bi ñuy def au-delà également plaidoyer bi ñu def parce que plaidoyer moom ci nguur rek lay dem mm. wala ci chef religieux yi mm. amul feneen fu muy dem wala ci leader d'opinion yi de manière générale voilà euh, Djibril Wele mu mel nii nag euh, waxtaan wi am na solo mais di ñu coraloon ci waxtu bi yegg nañ ca waaw donc euh, li may tàggatoo rek mooy di di la remercier encore il fois ci invitation bi parce que ñun suñu ay peut-être message mën na bañ a àgg fép mais à travers seen ay émission Euh, je pense que message bi mën na yaatu ba képp ki nga xamante ni jotu joon mën cee jot donc ça veut dire que xeex bi du suñu xeex ñun kese mais euh, seen xeex la yéen tamit parce que euh, tuxkat yi bu ñuy lor seen bopp la ñuy lor waaye tamit ñun duñ ci rëcc mm-hmm. parce que dañuy loraale à travers la fumée secondaire baax na également vraiment ñu leen di waxal mais aussi di lancer un message encore une fois à l'État du Sénégal mu jël ay responsabilité parce que bar ashisha yi ñu ngi yokku xale yi ñu ngi gën di tox te bu ñu bàyyiwul xale yi dinañ faatu te boobaa responsabilité état la donc li ñu war a def yomb na mooy signer décret bi Euh, numéroté euh, arrêté bi pour que chicha génn Sénégal cigarette génn ci boutique yi ñu koy jaayee vraiment ci ay débit de tabac waaw loolu moom bu ñu ko amee wax dëgg yàlla mën naa wax ni voilà Sénégal dina delluwaat ci place leadership bu mu nekkoon bu njëkk merci euh, sant ko gërëm ko moom Djibril Wélé fàttali ne moom lañu doon dalal tey ci suñu émission bi di SOS santé Djibril Wélé nag Djibril Wélé nak nekk secrétaire exécutif de la Ligue sénégalaise contre le tabac fàttali ne a doon déglu seen émission bi di SOS santé so santé nag Fatou ba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité